sàmm mi du jox nit diine waaw ah, habitude yu baax rek mooy jox nit diine waaw ah. ah. waaw moo taxoon jàkka nekk assemblée nationale ba noppi nekk néegu yàlla moo doon cosaan waaye léegi kenn xamatul ndax loolu amoon na mu déet ndax sunu borom ci xereñam moo mayoon jullit yi ñu def jàkk ndax ku bëgg le soxla dem daje fa diw ndax bëgguñu nga dem këram te xamuloo jekk na ci recevoir la walla de walla moom ñi xamuloo jekk na ci recevoir la walla comme jàkk ji nag ku ci dem jekk nga ci wax ak sa mbokk ba fa dajeeg moom nga ni ko boo légee fas naa yéene dem ba Mauritanie waaw jàmm ni ñooy muy mu mu muy xajaratum bi darbatay waaw waaw muy xajaratum bi darbatay waaw benn doj bu jam ñaari picc waaw nga jaamu fa yàlla wax ak jullit ya fa nekk sa soxla waaw moo tax yonent bi di wax ni zur xiban tasdat xubba zur bul def suba su ne nga nuy ji sa xarit nekkoon dootu la namm waaw yonent bi ko wax te nee na nammeel bu dàqoo cofeel dàq waaw waaw waaw <laughs> uh borom baytu ba na ko wa zur xibban tuzat xubban fa man aktara tardaada abnaahul malal fexeel ba sa xarit namm la tey na bu dee suba su nekk nga xëy ko bu yàggee ne da yëg ne xarit gi delloo gannaaw waaye ne bu dee ñetti fan ñeent mu ni moo ana diw ne na nga gis cofeel gi di dugg si nag wallaay moo tax habitude yu baax rekk mooy def nit jullit waaw waaw habitude yu baax mooy def nit jullit habitude yu bon mooy tax li yonent bi wax ni jullit dana julli ba noppi jóg di dem yàlla wax benn malaakam ni ko ramaseel fi mu doon sujjóote gi yépp takk ko ci eh, eh, morceau ba mu dëgër sànni ko mu topp ko waaw ah? maanaam day tali ndax yàlla moo man bàyyi ci nit moo man xarit ci nit moo mën sëriñ ci nit moo tax lu mu wax rekk boo ko defee gis njëriñ la waaw moo tax jataayam ci biir nit kenn mënu ko wetti kenn mënu ko wetti waxinam itam kenn mënu ko yonent mënu ko philosophe mënu ko mënuloo jaar ci benn xam-xam ba ni yàllay waxi nit nga roy ko kenn mënu ko hmm? moo tax boo jàngul waxam doo xam dara jàngal waxu yonent yëpp benn waxu yàlla ko gën waaw jàngal waxu yonent yëpp ak yu sëriñ yëpp yu wëli yu yëpp yu aktaab yi yëpp yu philosophe yëpp benn waxu yàlla ko gën du benn waaw moo tax conférence su professeur Monod Monod dafa bari woon xam-xam taalif na ci lu nekk nekk na sax prix Nobel waaye itam rek kenn mënul woon def ci boppam yàlla am na bind na ci man téere yi mu ci bind yépp am naa ko dama koy tari ni fàttee waaw téere yi mu bind yépp pour weddi ni yàlla am na dama koy tari ni fàttee waaw ndax xam-xam bi ci nekk ak mbindinam kenn amu ko waaw mu wàtte benn waxtaan nag ca tugal woo ca boroom xam-xam yu bare bare bare pour nag dëggalal leen ni yàlla amul taalif na ci ba tàyyi doyul ko doyu ko léegi dafa bëgg a ñoom mu génn texte ba muy texte bu nga xam ni préparé na ko juróom benn weer mu ca demee ak ñoom dem ca ñoom ba ñeenti waxtu am na ko ba mu noppee kenn ci boroom xam-xam yi jóg ni ko maa la gërëm maa ngi la sant ndaxte gëm gi ma gëmoon ni yàlla am na gën nga ko saxal tey ndax ni ma xame sa xam-xam ni ma xame sa may ni ma xamee sa seetlu xaqiqa boo bëgg a dàq ñaari minute doy na la ci kon nag soo amee ñeenti waxtu di dàq benn xaqiqa mutt wane na ni kenn mënu ko dàq waaye nit bu baree noonu xam-xam di dàq benn xaqiqa ba mujj ci biir muy bëgg a daq boppam e wane na ni xaqiqa ba kenn mënu ko dàq wax dëgg uh-huh. moo tax xeeb la nga am baaxul waaw ah, bu la ko kenn jaral dëgg la nag dana metti ndax it yonent bi lu mu wax dana am nee na woon yéen ñii sama njaboot jamono dana ñëw xeet yépp dajaloo dal ci seen kaw ku leen mën a xeexe alal dana ko def ku leen mën a xeexe xalaat dana ko def ku leen mën a xeexe weñ muy bal di kano di fetal di jas dana ko def moo tax boo takkuwul àdduna tukki boo takkuwul benn borom weñ ñëw tiital la nga bàyyi wala borom alal ñëw tiital la nga bàyyi wala borom xalaat ñëw fexe ba tuur la xalaat boo xam ni dootoo ca génn pour xam lu yàlla ak yonent bi wax waaw mat na bàyyi xel nag ndax moom lu mu wax rekk am na waaw Euh, yitte ak pas-pas rek moo am solo yenn yi sa xol dafa tàng li moo tàng mooy da gis ku ñu jur ci lislaam ngénte ko ci mu xëy ba takk ci jabar ci sa kanam waaye jikko lislaam daf ko jàppe nga gis benn tubaab tuub léegi am ñaari weer nga gisaat ko doo ko xàmme ndax jikkoy lislaam loolu daf laa metti walaay ndeysaan benn xale bu jigéen tubaab la mi ngi tuub waay nekk ca sonn ca ñetti weer fekk euh, xam na lépp jàng na ko ñetti weer yi rek waaw ma nga ca góore amee saagam nag ma nga sañse ñu ngi ko defaral bopp bi muy doxantu dajeeg benn mokkam mu ni ko yow su tuub géeg nii nga sañseeg sa bopp bi muuruloo ko ana di ko tooñ ndax cousin la ci moom ni ko ana sa voile bi ngay war muure di ko wan ni ko lislaam daf ni ne jigéen yi muuru mu ne ko ana sa voile ndaw si ni ko laaj ma li gën di yitte ci voile mu ni ko lan la mu ni ko laaj ma ana sa kaamil làmb saagam rek génn ci kaamilu alquran ni ko kii mooy xaqiqa la waaye voile bi nga laaj folklore rek la ci waaw uh-huh. uh-huh. ba tax nag jiital li gën di farata farata la waaw jiital li gën di farata farata la mu mel ni itam bokk na ci itam liy tax ngay xuloog yàlla ci sa xel mu yen la lu diis waaw waaye ku ko nanguwul kay ku ko nanguwul kay jeex na ndax itam yàlla ku mu wóolu rekk lay teg lu diis te boo ko seetee ba ci biir it njàngale la xeetu njàngale la asa an takrahu shay'an ak asa an takrahu moom la wax ci alquran ñaar a gën a metti ci àdduna góor gu ub néegam cuuraayam nekk ca lit ko lañam nekk ca euh, euh, boitu tàngalam nekk ca satala muraakeem nekk ca mbubb mu ñu gomeem nekk ca mu génn ci biti ñu taggul takkaloo ko ndiggam jox ko jaasi ni ko demal ca xare ba yàlla nee na kay metti na waaw nee na metti na waaye nee na la wóor ni góor kat cuuraay léeg mburaake bu dakkul lëf manqué cuuraay ak mburaake mu dakkul ci góor des na tuuti xale bu tuuti tane ko des na tuuti xale bu tuuti nag tane ko parce loolu it du dund loolu it du dund moo tax léeg-léeg nga génn nag dem ca tollu xare ba nag ñu seet na nga toll waaw nee ñu sama mbokk sëriñ ma dafa dégg rek ni sëriñ sa dem nañ ci jihaat mu ne fu ñu jaar waay moom xamul sax luy jihaat waaw tudde nañ ko sëriñ rek ndax aada ñu ne ko sëriñ sëpp dem nañ ci jihaat ji mu ne fu ñu jaar waay ñu ne ko fii mu dal di fa mu rek jaar dem ba ca yoon wa dajeek benn capitaine boobu tubaab yaa ngi coloniser réew mi capitaine bu ànd ak ay espagnol parce que tubaab bu dee coloniser réew du dimbale boppam waa réew maa koy dimbale pour mu not gor ya fa nekk ndax ñetti tubaab mënuñoo mënuñoo not fanweeri junniy nit mënul nekk kon bu ñu leen noté bokki ñoo ñaa taxaw ma wax leen ko tey waaw muy dem ba dajeek ay space yoo xam ni nit ñu ñuul lañu ñu nga ànd ak benn capitaine ba leen yilif rekk di leen seetal loo góor yi mu ne waaye ana fu sëriñ fa si jaar waaye te kat ñooñu lañuy ñuul ñu ni ko waaw loo di doy mu ni damay jihaati capitaine bi ni ko aha ah. mu ni ko waaw mu woo kenn rek déey ñu woo ko yóbbu ko ca taatu daxaar ga rek futti ko mu ni nag buñ ko rey nañ ko caw rek ñu caw ko caw caw caw ba mu baatu ca kaw ñu ne ko ndax di nga jiyaatati mu ni mukk mu ne mukk <laughs> eh, ñu ni ko tubaab bay laaj foo toll mu ni wax leen ko nu ko mokk naa ni sungu fa ko niw <laughs> naa ni sungu fa ko niw ñu ni ko tubaab bi nee na nga won ko luy sungu fa ko niw mu ne ay celeen dal di ñëw ci jabar ji ni ko defaral ma sunguf lay ko fukki yoon mu ngi ko tëjëlal tame bi gën a fat fukki yoon la wax ñu layal ko fukki yoon mu ni ko def ko ci niw goo xam ni rekk benn yemul ak moom mu defar ba mu baax mu ni ko ay cet eh, eh, yëngalal nag ndaw si di yëngal di yëngal di yëngal di yëngal ba nga xam ni daal daa nekki lëf li dara nekkatu ndax nooy gu ndaw si jox ko mu laal ca baaraamam ni ko ki jàgg na de <laughs> moo tax loo xamul rek du ci dugg walaay ndeysaan baax moo tax asa ak asa am ci alquran yàlla ne ma jékki-jékki taal xare waaw na góor ñi ñamaat ca seen pas-pas benn musiba taxul ma def ko waaw nee na bu ma ko defee rek booba dama xam ci sama xikma ni bu jàmm ja continuer yàqu-yàqu dugg waaw muy asaaba ca des nag diggante jëkkër ak jabar nekku jëkkër ak jabar ñu bare xamuñu ko wala asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum mu dee alxarba wa asa an tuxibu shay'an wa huwa charrun lakum mu dee alxayr waaw bi ci des وقد عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا waaw nee na sëy nee na ku la ni neex na waxul dëgg ne moo tax bu baatu tawat génnee rek mu rus parce que du neex moom ca njëlbeen nga la ci dagg neex ni warul nekk tax ne ku tawat rek mu rus ndax ki ngay tawat kenn warula dégg ak moom waaw nee na muñ nga ngay muñ ba kenn du leen dégg mooy sa muñ nga muy muñ moom itam ba kenn du leen dégg mooy yiwam nee na waaye ku la ni neex na waxu la luy sëy mag ñi ñoom sarxa ko mi néeg dafa xat mu jeex takk ni néeg dafa xat mu jeex takk ñoo ko sarxa waaw moo tax li nu dal la ca gën a metti mooy wàqante wu jeex waaw xam nga wàqante bu jeexee yépp yàqu wante wàqante dafa jafe waaw dafa am yoonam asalib yi du jeex waaw am na nu ñu koy waxe ci jamono moo di uhibbuk li ngay waxanteel uhibbuk mu ni wa ana ki ngay waxante ni la wa ana laa kadalik xanaa kay uxibbuk la ca jëkk moo di wa ana kadalik ah, ah uxibbuk la ca jekk kay moo di ñu ni la wa ana kazalik waaye nga ni ko uhibbuk mu ni la wa ana la kazalik <laughs> waaw loolu mooy waxante wu dagg man day sopp naa la mu ni la may itam déedéet wante aha kooku sottiwul ah sopp naa la kay ba itam sopp naa la rek jeex na waaye dag bu waxante àgg na foofu tey waaw moo tax waxante bu jeexee rekk adduna tukki di nga ko xame ci yu bare di nga ko xame ci daje yu bare te juboo du am waaw dinga ko xame ci waxante yu bare te xol du féex waaw yooyu yëpp def ci yàlla ba moo tax waxante fokk ñu delloo si ko tënku ko ci àtte ya ko daan yenu waaw fokk waxante ñu delloo si ko tënk ko ci atte ya ko daan yenu waaye waxante fuyu faya rekk sànni ca àll ba kooku jaratul kenn di gisee kenn jaratu ko waaw ndax moom cadre yi am yàlla tracé na leen ba noppi te moo di cadre alxaq wal baatil cadre alxayr wa char ak cadre alsawaab walxata yooyu rek a fi nekk ci ay cadre te comme yàlla nee na doomu aadama fitra moo jiitu ci moom nit lépp lu mu wax te la ëpp ca xelam dal ci moo di alxaq nit lépp lu mu wax te bu duggee ci néegam la ëpp ci xelam du ca dal moo di albaatil waaw nit lu mu nekk te rusul kenn gis ko moo di alxayr lu mu nekk te rus mbañ rus ya gis ko moo di achar dafa taxaw nga bëgg xam bu ca gën a rafet waaw waaye xam bu cay dëgg bu ca dul dëgg newu ca waaw mag def njëkkar xam waaw maa la ko wax mag def njëkkar xam waaw mag def njëkkat xam waaw moo tax bu mag di diisoog yow ñaari ñaari yiw yu ma xamul bu ca tane tax waaw <coughs> waaye waaye juum <coughs> ka ca diisoo xam na ko waaw ah. mag mu ub buntam rek am lu mu xam maa la ko wax mag mu ub mu gudd rekk dal di xam lu xew waaw bu tooñee xam bu tooñul xam bu nekkee ci njub xam bu nekkee ci njuba de xam lépp dana ko xam lu mu la waxati rek daf lay boole ba tax na waxante boobu du deñ te ba ca gën a neex mooy waxante diggante al xaq wal baatil nañ leen bàyyi ñuy waxante dana jur yiw nañu bàyyi itam alxayr wa char ñuy waxante dana jur yiw nañu bàyyi itam alxata wa sawaab ñuy waxante dana jur yiw waaw dana jur yiw moo tax yàlla xaw ko melal melal bu yërëmtalu ndax ñun aljanna ak safara la ñu tudde yooyu alxaq mooy aljanna albatil mooy safara alxayr mooy aljanna alchar mooy safara alsawaab mooy aljanna alxata mooy safara te seen waxante nag farata moo tax yàlla wax ni ku defe ni distance am na diggante aljanna ak safara xamuloo lu xew nee dañuy waxante dañuy waxante ni nit ñuy waxtaane ci pénc yi ëllëg waa aljanna dinañ ko di waxtaane ak waa safara ca waxin wa nag ca waxin wa rekk ngay dégge ngay dégge wa naada asxaabul jannati asxaaban naar eh. an qad wajadna ma waadana rabbuna xaqan fa hal wajadtum ma waadakum rabbukum xaqa waxin yooyu dafay am ak wa naada asxaabul naari asxaabul janna ñoom amatu amatuñu mëntiq an afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah waaw nu ngee jottali xaaj ndey déggan sàll cantu njaboot waaw ndax borom yëf yi nee na it ñu jottali ko ko xam nga su yàlla waxee nii waa aljanna ci lu dul tiitaru dinañu wax waa safara ni leen nag yàlla wàcc na parce que ñun day li mu waxante woon ak ñun def na ko waa aljanna dinañu wax waa safara ni leen yàlla wàcc na la mu waxante woon ak ñun def na ko bu ko defee waa safara pour tontu wax joojale du ñu am mantiq bu ñu toll ndax boo sonnee dootoo am mantiq bu ko defee ñu ndax ndox amu fi ngeen may ñu mooy waxante ba waaw ndax ndox amu fi ngeen may ñu ndax dënu mar tilim waaw foofu la seen mantiq toll waaye waxante bi farata la parce que ñoo bokkoon àdduna bi ñoo bokkoon deret ji waaw waaye ñële daal ci lu dul tiitaru daañu nangu ni seen borom daal la mu leen digaloon def na ko waaye ñii daal dinañu laaj ndax ndox am na fa ndax ñu mën naan mën sanaan waaw moo tax di ci ëpp solo rekk mooy waxante bu mu dog mukk waaw te yàlla def na ci lëggët ndax itam bare na njaboot bu tiitaroo waaw bare na njaboot bu tiitaroo sama directeur u service ku baax la man de bu ma xëyee yenn yi bu ma ko gisul it bu ca ëllëg saa ma gis ko xam nga daf koy bégal loolu moo taxit yàlla comme njabootu yonent bi toll nañu ci moom ni ñu toll ci moom bëccëg bu nekk mu may leen juróomi yoon audience waaw bu ñu xëyee ñëw wuy si ko muy julli suba bu tisbaaree ñu ñëw wuy si ko muy julli tisbaar bu takkusaanee ñu ñëw wuy ko muy julli takkusaan bu timisee ñu ñëw wuy ko muy julli timis bu géeyee ñu ñëw wuy ko muy julli géeye ci koo xam ni war ngaa mën a toog juróomi at te doo ko may audience bu dee bés bu ne nga may ko juróomi yoon audience am na loo nar ci moom waaw am na sax boo ko bëgg a defal am na it loo bëgg a def ci jikko du leneen nag du leneen nag du leneen nag moo tax mu ne audience yu ndaw yi nag yu bokkul ak yu mag yi ah nee na kooku nag ña koy am du ñëpp waaw nee ña koy am du ñëpp am aj audience yu tisbaar diggante tisbaar ak takkusaan nga amaat fa yeneen ñaar am audience suba diggante suba ak tisbaar nga am fa yeneen ñetti audience am audience su timis digganteem ak géey nga am fa yeneen juróomi audience nee na ka koy am mooy ka fas yéene mu mel ni man waaw ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil audience yu ndaw ndawaan yi nee na ki mel ni man laa ko bëggal waaw waaw waaw nee na ki ki ma bëgg mu mel ni man laa ko bëggal nga xam ni dana dema dema dem ba sama nopp di noppam sama bët di bëtam sama làmmiñ di làmmiñam sama tànk di tànkam waaw waaye nag metti na ndax itam li ñoo tuddee eh, la waaja waxoon nii xam nga li tudde maanaam dafa jël alalu jàmbur bi mu koy jël ñu séen ko ña ko moom dàq ko mu damm ñaari mbedd daje gorom ah moom taxaw di nuyoog moom jàmmante goro dafa yàgg nis tuuti rek mu dégg coow la di dikk goro bi ni ko lool lan la mu ni ko ah, ñooñu de bu ñu yàgg si rek di dóor mu ni ko lu tax mu ni ko awlu rek waaye itam boo àggee ci awlu yàlla sa nof lay dàpp waaw boo àggee ci awlu yàlla sa nof lay dàpp waaw seetal yàlla ni moo aawloo moo yàlla ngelaw li moo yàlla tàngaay bi moo yàlla sedd bi moo yàlla nawet bi moo yàlla ñàkk taw bi waaw rekk nag rekk nag yiwu mu def ñu def ko safan ba tax nitam yi itam comme ñooy def waxtu ne ñu ñaan ko audience mu sëdd leente ba mu doy waaw bu ñu tëjoo ci seen néeg ni tiisoo bu ñu demee ca marché ba fekk ko ci loo ci mën moo tax ñu sonn moo tax ñu sonn tabarkal la uh-huh. boo defee boo àndeek ñoom di bëgg a dee di bëgg naan poson loo ca man dara ñoo ko sababu ba gala ji Peter dafa ñëw ni Cheikh El Hadj waaw yow mu ne ko ci lan mu ne ko li muy dégg ci mbedd bi mu ni ko ah, fi ngeen ma bàyyi woon fi ngeen ma fekkaat de mu ni ko kon nag bàyyi nu nuy xeex ndax itam koo xam ni fii nga ko bàyyi fi nga koy fekkaat te doo ci mbedd mi dégg lu ne bàyyi ko boobu mu xeex mu ni ko xanaa xeex ba gën waaw mu ni ko ban la mu ni ko fatiha ak falax naasi Mm-hmm. ni ko fatiha ak nas ni ko peeda li mag ñi amoon yépp bëgg naa ko te jotu jaamu aw ma ko kon nag fi ma bëgg a àgg lam ñu nit ñi rekk ma ci mën yóbbu waaw mu ko fi ma bëgg a àgg lam ñu nit ñi rekk ma ci mën a yóbbu waaw ndax bu dee junni ñu jaamu yàlla junni junni ñu jaamu yàlla yàlla xaaj ko jox la bu yàggee rek léegi nga àgg fa nga jëm waaw wa uh-huh. taxoon yonent bi sonn wa ida jaauka xayawka bi ma bi llah di tooñ rek ña ko bëggoon buñ ko dee nuyu duñu ko sax att ndax duñu xam nu ñu koy nuyoo ndax liñ ko yéene waaye ña ko bañoon bu ñu ñëwee dañ koy nuyu nuyu jahiliya di ko wan ne ko doo kenn ci nun bu ko defee xolam tàng jër yàlla ni ko nag yëg naa ko am na luñ ca boole te yëguloo ko te man yëg naa ko mooy mi ngi naan ci seen xalaat ñëw wax nan ko ko di du ne yàlla mën na lu ne lu tax alagunu seetal loolu waaw ah, law laa yuadibuna allahu bi ma naqul du dañ ne yàlla mën na lu ne te nu ngi saaga yonentam bi lu tax alagunu seetal loolu yàlla ni duma leen alal ndax kon bu ma jotee ci ñoom la ma bëgg dootul metti waaw xam nga ki la ñaari yoon rekk ci mbedd mi xolam xaw na féex waaw bu fekkee danga ko tooñ mu mbéj ñaari mbéj ci mbedd mi xolam xaw na féex bu la jotatee it du def lu bare te loolu la ci yàllay bañ dafay eh, dawal ñaari mbéte waaw dafa bëgg rek nga agsi waaw ba mu won la la mu mane <laughs> waaw <coughs> moo tax du la dawal ñaari mbéte mukk uh-huh. moo tax law laa yuadibuna allahu bi ma naqul cee nga muñ rek waaw waaw ana ko daan wax tey uh-huh. moo tax yonent bi nangu yen nangu yen a tax yàlla xamatul lu mu koy faye faf di julli ci moom bi jaam boo bindal sa bopp ba noppi di julli ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu xam jàmbu la nangu la ko jar waaw moo tax sama turandoo Sayid Cheikh Ahmad Tijani nee na bu ñu nee alxaqaiqul muhammadiya alxaqaiqul muhammadiya nee na da ngay xàmme ba cay alzahiriya wala ba ca ba cay albatiniya wala ya cay batinul batiniya ndax alxaqaiqul muhammadiya ya nga xam ni dafa am ittisaal bil kawn bil mujtama il insani mooy yonent bi gën bàyyi yépp ci doom moo gën jëkkër yépp ci jabar moo gën kilifa yépp ci njaboot moo gën jàmbaar yépp ci xare moo man maykat yépp ci joxe loolu mooy wàllu zahiriya bi loolu bu ñu nee alxaqaiqu almuhammadiya mooy wàllu zahiriya bi waaw nga xam ni yàlla dafa teg ci loxoom xukmun bil istibdaad teg ci loxoom tadayunum bila rahbaniya teg ci loxoom rinan bila taraf teg ci loxoom faqr bila nxitaar teg ci loxoom insaniyatun bila kibriya teg ci loxoom xubbun bila rawaaya teg ci loxoom uxuwatun bila tadiyiq teg ci loxoom xilmun bila hawaan ci loxo rujulatum bila tahattur teg ci loxoom ijabiyatum bila iftiraas bàyyi ko nag mu dund di malikam bila qasr wala xarasa بلا قصر ولا حرسة إلا قصر العدالة وإلا حرسة الأخلاق ndax yonent bi dañ ko jox pouvoir te nanguwul nekk dictateur ñu jox ko diine te nanguwul nekk labbe ñu jox ko kom mu dul jeex te nanguwul a tëxët waaw ñu nag nattoo ko ñàkk te nanguwul a nekk baadoolo ñu niteel ko te rëyul ñu jox ko cofeel te bewu ca ñu xamloo ko ak bokk te sonnalul kenn ñu jox ko xel mu rëy te doyadiwul <laughs> waaw ñu def ko góor te dof dofluwul jox ko góor waaw ñu def ko góor pire te dof dofluwul ku mu gis dañ la waaw ñu xamloo ko àdduna te songul kenn mu dund di di buur te tabaxluwul pale wutul ku ko garde waaw waaye tàccu leen ko bokk kon nag itam moom nit daañu àgg daañu àgg ci yar ko jox ko jikko ko it ni muy jariñoo ci dëgg alxaq noon ndax topp ko noon lay jariñoo ci baatil ngir xam fu mu féete ndax mu teet ko te it lay def baynal xayri wa charr waaw dafay am dafay am am na ci ñoo xam ni bu ñu ñëwee ci yàlla lu ñu fekk ca moom rekk seen yiw la bu ñu ko fekkee mu muuñ seen cir la dañ cay jariñu bu ñu ko fekkee mu xonqal bëtam seen yiw la dañu cay jëriñu waaw waaw ndax pour ñoom kat muuñ gi yëpp muuñ gi ak bët bu xonq bi benn la ñoom ñaar amuñu solo ki ko mooma am solo waaw moo tax am na ci kenn ku ko wax ci ñoom ifaalu ma shi'tumu waaw ifaalu ma shittum innakum kullu fialin minkum adbun ladayhi ndax dafa am al ñoo xam ni alxaqaiqul azba ca la ñu xaj am ñoo xam ni seen yoon nekku ca alxaqaiqul adba wal murra benn la ci ñoom seen yoon nekku ci te ñooñu am nañu ay kilifa yu tax ñu man ko am na loo xam ni ku ko man sa kilifa tax nga man ko waaw koo xam ni buñ la saxalee lem muy xéewalu yàlla ñu saxal la kaani muy xéewalu yàlla fekk na am na mag mu tax nga mën ko waaw waaw ifaalu ma shiitum innakum kullu fi'lin minkum adbun adbun la day jeex na gis nga dañu wax ni jaam bu gëm yàlla xëy suba ba jant so te ñaanul yàlla bakkaar na waaw ndax yàlla xam na ni defatu ko xarit waaye am na ci mag ñi ñu rusoo na ti tàllal seen loxo ñaan yàlla ndax yërëm ko ndax yërëm yàlla ci li ñuy dégg nit ñi di ko teg ci dara ak xew-xew yi xew-xewu weer wi xew-xewu jant bi xew-xewu suuf si xew-xewu utaarid xew-xewu mëréex ak xew-xew yi ci des yépp mu wóor leen ni nangami téeméeri milliards yi àdduna góor goo xam ni yaay rekk leen lañu nekke ku la yërëmul dootul yërëm moo tax ñu daan rus di tàllal seen loxo sax di ko ñaanati te ñàkk ñaan bakkaar waaye nangu nañu sax yenu bakkaar boobu ndax yërëm yàlla am na ci koo xam ni yonent bi moo ko feeñu ni ko wala yauduhu xifduhuma wa yonent bi ni ko wala yauduhu xifduhuma waaw wala yauduhu xifduhuma waaw ni ko diisu ko nag tiisu ko waaw waaw yonent bi waaw waaw wallaay yonent bi ni ko li yàlla yenu nag nangami milliards yi adduna ngay xëy rekle ko ci benn minute mu ni ko diisu ko nag tiisu ko waaw waaw diisu ko tiisu ko waaw waaw uh-huh. mu muy wax yonent bi awala awalam yaraw anna naati l arda nanqusuha min atrafiha waaw looloo taxoon ñu di ko yërëm waaw waaw ca ñaari boor yëpp waaw te uh-huh. boor ba cay booru al ilm ak boor ba cay booru siyaasa am yaraw anna naati al ard nanqusuha min atrafiha walaay ndeysaan waaw xam nga dañ ni yonent bi du fi wax waaw bu génnee ñu rey ko bu fi waxee ñu sànni ko doj ñu xëpp ko suuf yàlla dema dem ba moom dootul wax moom yonent bi ay xale yu tuutee génn di ko wax te fu ñu waxee kenn du ko wedd waaw yàlla nag di ci waxtaan ak yonent bi ni ko ndax gis nañu bi may taxañ suuf si pour yow taxañ bi moo di ku ñu ni doo waxe fii ci kër jëmm nga dem ndakaaru fekk fa sa dayira taxan taxan nañ taxan nañ la eh, eh, kër jëmb ba ndakaaru taxañ nañu ko waaw déggal waxin bi waaw ci wàllu stratégie politique waaw ku ñu ne doo waxee ci péncu kër jëmm nga dem ba ndakaaru bu ñu la tuddee yépp daanu leer yàlla taxañal na la yoon waaw nanqusuha min atrafiha ci wàllu stratégie politique ak nanqusuha min atrafiha scientifiquement lu suuf si bu ko yàlla bàyyi woon ni mu mel ba léegi basculé na waaye ne ñëw ba ñëw fu ci wara ëpp ma ma fëgg ko ndànk te kenn du ko yëg def ko poussière mu wadd waaw hmm. nee na ndax bu ma koy def sa gaañ yi dinañu ko yëg waaw kenn yëgu ko ndax ku yaa nga jaaxal sanga sanga waaw ah dañu wax ni tukki day taxañ yoon a ca gën a gaaw tukki taxañ yoon a ca gën a gaaw waaw maa ngi koy waxtaane kilifa bu baax da dafa dëkk ci benn réew réewu jullit la waaye dañu am doole ñu am nag ñaari projet yoo xam ni mi ngi bari coow mooy dañu bëgg def benn école bi ci jàngale espionnage wala tajassasu waaw waaw wala tajassasu ndax jamono dana soppeeku ba ñu nangul leen ko ba ñu nangul leen tajassus xamuloo ni roy baax na wante ëppal baaxul parce que ku roy tubaab ba mu jeex ni yàlla alage tubaab mu alage la noonu waaw ndax am na lu tubaab di def diine d'accordu ci ay ibnu Mariam d'accordu ci te mooy seen yonent mais d'accordu ci boo dégloo pape bi waxtu wu ne mi ngee soow rek di xul te li moo xul kat tubaab yee ko def waaye xam na ni diine nangu ko waaw école booy jàngale ñuy def espionnage fokk nga seetaat ko boo dee jullit boo dee réewu jullit bu ca sa alal àggee seet ko ndax wala tajassasu wala tajassasu am na aada yoo xam ni baaxul te mooy fekk nit koo xam ni nitu jàmm la toog ngay seet lu muy ree rek lu muy añe doxul doxul waaw ba doon naa ca soowoog xaleelu militia yële nekk Liban at ma ma ca demee te ñu invité ma ca seen camp yi di def seeni entrainement ni ma lu tax du ngeen ko defloo doomu jullit ya ca Sénégal ma ni ko xam naa bu nu njëgee boog seet rek it lay mën a bëgguma tas seen yaakaar ay ñu nga sonn lool ku ci am fukki at ak juróom-ñett ca ngay yem ngi laa jàngal nooy xare nooy sànnee bomb nooy toje avion nooy toje gaal ëpp nañ fa fukki junni def naa fa fukki fan ak juróom ak ñoom seen kilifa nag way naa ko fa sax xasida bu rëy waaw woni ma wa aiddu lahum ma stataatum min ko wax ci mu ni turhibuuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum waaw ma ne ko wa ayna a'daa'ullah xam nga turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum lanu ca ragal moo di ay jikko yu baaxul tax nun nooy aadaa yi boobu ndax bu ñu waxee yonent beeg ñi ànd ak ñoom ni leen na ngeen waajal seen bopp teg ci seeni buntu kër waaw ay gànnaay aki fas ba ñu xam ni lislaam bi lu góor am am na ko jamono ba ñu koy waxe jamono la waaye jamono bii nu nekk nii itam jamono la te it jullit bu fekkee ni ay habitude am soppi na ko mooy muy noonu yàlla balaa xareet kenn na defar habitude ya ba nopp da ko